alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'honorer de votre présence cette deuxième édition du défilé du complexe KSF organisé par monsieur Mbengue. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di kontaan bu baax a baax ci teewaay bi. baax a baax aussi présence bi di leen yëgal ni ñu ngi ci deuxième édition anniversaire KSF couture yemook samedi 25 février 2023 fii ci Malicounda ñu nar a ànd ak monsieur Mbeng ci défilé bu am solo ànd ak mannequin yi ñu nekk ci biir di présenté wu avant que ñuy commencé programme bi dañ koy tijjee ak ñaan su ko defee ñu mën ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulillahi rabbil loolu dañuy ànd ak lay jóg moom la ñuy euh, mu defal ñu ñaan ñu tijji ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm man lay jóg anamu voilà donc su ko defee ku nekk fa nga toog na nga nangu ñaan. am naa rappel ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim. jërëjëf jeexal ko ci jàmm ak salaam. monsieur Moulay bisimilah. suba. salaamaaleykum wa rahmatulah. suñuy daje ñëpp. di leen ziar bu baax a baax. di leen ñaanal jàmm. yal na yàlla defal jàmm. defal ñu xéwal may sutura kera ma ñu wér ci Pape maa ngi nuyu ñëpp ci gërëm nit moom mooy som rek ah. ba ba nga ñëwee indi ñaar kontaan nañu bu baax a baax ñaan yàlla lépp luñ ci yaakaar rek yàlla na raw suñu njort ci yaar na bu baax ba ñu def Fatiha wala xet naa si ñaanal jàpp ñaanal xew ak gudd fan ñu xam ne projet jël ko dina masawu coono ndax temps bi cher nga déplacé say maam say kilifa say nijaay sama nijaay yow laay jox nuyoo bi rek jàll si ñëpp ndax yow sama sang la si parce que nuyoo bi sama nijaay ma sang sama sang la si parce que sekkee soxna ma di tey moom ma ci fi ñëw tey sama sang la si parce que mu euh, kon ñooñu kon képp ku fi nekk rek bokk nga ci passance bokk nga ci diine bokk nga ci li ni mooy bokk suñu gëm-gëm xam ne ñoo bokk nañ bokk ni ko monsieur Sow waxee rek dama koy jaar. ñu ko bu baax yow rek yaa ko xam nga war a yenn si moom fanaan ak moom yenn waat ak xëy ñi bi donc c'est pas facile ku leen gis nga jàpp ko ñu ay kilifa te ay nit ñu am kilifa lañ kon tàcc leen ma leen te ñaanal ma seen bopp ngeen ko defal rakk ji dal merci madame Tom dégg naa ñëpp ku lim da ngay fii la ñu juddoo yaroo fa ñu màggee waa Njóob a nii waa Njóob moom moom seen fay dama ñëpp bàyyi ak ñoom ñun waa Jokalante la jëñ ah waaw euh, bi ñu demee Dakar depuis ñu jàngee métier fa ñu defee lépp wax dëgg yàlla mais dama gis ni benn réew mënul tekki si la làkku jàpp. ndax loo mën a di doon dégg dégg sooy génn làkk li nga nàmp loolu ngay génn loolu ngay làkk loolu loolu ci mu wax borom xam-xam kon man mu ma am feneen passé ma parce que lii laa fu mu mun di def fu mu mun ndànk ndànk dañuy yàgg li ñuy wax jeune ci biir sama bopp dañu leen jàng métier nekk sa kaw di leen neexal ma wax leen benn affaire daan naa béy ci juróom-ñetti at wala juróom-ñetti at musuma am mandat bu julli musta am ñaareel laa baax na ku mu amee mandat mille cinq cent ak trois Moussa sama yaay dëggalal xam condition yi taxawale ko war a am normal ci kanam gi ba mu gis doo gañe dara kon il ñuy nangu jàng métier dara nekk sa bopp ba pare ngay soog xool yan risque nga siy jël jeunes du taxawaal dañuy am benn centre boo xam tous les métiers da siy nekk bépp métier da siy nekk suñu jarbaay suñu rakk yi suñu doom yi muy góor nekk si liggéey man am na loolu nañ ko def Ousseyn hmm, yéen yéen a nekk si autorité yi ñun ñaan yàlla ñu saxu dañ leen di wax kenn ku nekk li nga am rek indi ko ñun lii lañu am métier lañu am kon foofu la ñuy mën a dëgg parce que di wax rek si yéen lu ñaar ngeen ñaaral ku di dem rek drapeau ma ne ko laa suñu yëngu dëgg saa bi di laaj. jaajëf rafet Vamos a Paul. xarit la mënuñoo toog deux jours ñu jéggantewul téléphone whatsapp wala ma woo ko ñu déraillé laay nag nee na bëggoon naa ñëw mais boo gisee tax ñëwul dafa nekk séminaire Saint-Louis moo tax yaa ñëw téyal fii ak rakkam bu jigéen bee muy daana daana sunu mag la mais laay nag grand bu baax la am yëg-yëg sant na la gërëm na la te nee après di ngeen jéggante téléphone góor yoon bi nga jël yoon bu baax la sama soxna la àndal mu nga nee toog dama la ko demal sax parce que man amu habitude di dem si man bu ma joxe enveloppe moom laa ko jox ñu ko demal mais góor rek laa gis bu mu xewalee ba léegi chaque fois bu ma joxe enveloppe muy daaw muy ren ma ñëw parce que sama grand la yére bi ma soloon sama tudd góor moo ko ñëw góor maa lay ñaanal li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal li ma la yéene moo kawe billaay wallaay sama xol dafa fees parce que grand baax la man xawma lu may wax ndax moom parce que chaque fois fu ñu daje dama naa ko xaaral maa ngi ñëw jël si la du ma bàyyi ma fen mu ngi nii mais sant nañ la gërëm nañ la li nga bëgg yàlla ko xam yàlla na ko yàlla defal ba maire bi nekk fii fekk njariñ bi ak paa bi yëpp si barke yonente bi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp merci beaucoup Who was gonna bu yàgg ci classe. leen di waaye xoolal ci suuf bi mu mel xool leen ci suuf loolu la la waaye c'est très joli ça très belle. vraiment c'est des tenues yoo xamante ne bii def nañ ci liggéey bi mu jaay. oh oh oh oh. acte de la création lii mooy gestation dëkk ngeen di lii coxu du ko def xam ngeen di lii coxu du ko def te acte de la création xool leen manche waaw yé waaw waaw waaw waaw waaw waaw Yeah, c'est très joli nga fekk ñeent Господа на деле tàccu leen couleur bi xool leen couleur bi.